dal leen jàmm waa APR dañoo jëfur wara dañoo xenc cuuraayu dëmm jamono ji xaxarante ba ak tamante dëmm ga ma nga fa mel ni tulleeg màlle diggante Moustapha Cissé Lo Farba Ngom ak Yakham Mbaye moom dafa mel ni sabar gu tas lépp mu ngi doore ca assemblée nationale bés bañ doon voteel ministre de l' agriculture budget ca la député bi di Moustapha Cissé Lo lu mel ni xame ministre de l' agriculture Moussa Baldé ak état bu Sénégal Moustapha Cissé Lo nee na nguur gi dañoo ingrat danoo baadoo la tey amuñu benn reconnaissance reconnaissance ndax opérateur économique bu toll ni moom kenn warul di wax waxu gerte di ko ci génnee ndax loolu la xam loolu la yàgg a def avant muy dugg ci politique relation avec les institutions say collaborateurs muy directeur yii fi toog ñu ci bëri xam naa leen maa ngi leen di nuyu euh, di leen sant euh, su ma wax monsieur le ministre xajul fi maron beige la je suis de l'APR maa créé APR maay APR affaire man la bi may xeex pour Macky sal di falu fii laa ko xeexe kenn ñemewul a wax am nay député fii yu fi ne ñi ngi ci responsabilité dañu àndoon ak Ablaye Wade ci xeex boobu may wax ni lii du dëgg ñu naan dof baa ngi wax ma ñëw nekk seen vice président sañuñu ko bañ nekk président parlement c'est yow yàllaa ko def mënuma jàppale Macky Sall wër àll bi doon xam bay gerte naan ko ndax li ma doon wax makki xamu ko biñ nekkee ONCAD cent mille tonnes cent vingt mille tonnes moo doon capital semencier man ma def semence fukki at ak nangam xandi giñ doon defee contrôle densité Sodeva lañ doon am ma Diop Jale PDS la woon moo nekkoon ak man Sarsara booba gone yi judduwuñu man may gérancé ko premier financement bi ma jot pour semence trente million la temps yooyu bu ma bokkee ci pouvoir bu ma xeex nañ ma laaj ci gerte gi ba pare may opérateur semencier import export maa ngi ko am quatre-vingt-un permis quatre-vingt am quatre-vingt-deux passeport génn réew mi dox fu ne am lu ëpp mille visa fu ma dem ñu déglu ma ñu may xaar méridien ci gaz beeg pétrole bi maa koy ubbi man discours bi lay def ñu ne dof la duñ ko déglu dama gerte gi niñ koy séddalee baaxul juuwul mooy premier point noté ko danaa def question orale parce que dama bëgg wax gerte gi kenn du ko yàq prix bi baaxul bàyyi leen ñi leen di wër naan leen ay profession amuñu tool jiw kenn du ko jox ku koy jaay ji café de Rome ku am mënta euh, produire une tonne nga jox ko semence di tonnes cent tonnes mu jaay ko parce que subvention de l'État ci ne am na ku may jaay mille tonnes yu ngeen ko jox engrais mënu koo fournir parce que amul xaalis banques yi wóoluwuñ ko man ma mën a am deux milliards ci banques di ko laaj bokk ci pouvoir bi di opérateur économique président de la chambre de commerce d' industrie ak d' agriculture de Diourbel gone yi nga xam ne bu ñu faloo màkkee leen fal ni Cissé du wax di ko saaga du ma ko nangu bu ñu génnee ñaan ma cent mille un million bu ñu amee problème trente sept millions laa def ci campagne législative yi député yi am na ñu ma ci jox ak i ministre xaalis 300 millions laa def ci campagne yu Macky Sall nañ ma laaj fu ma ko jëlee ah danaa nangu ay dara si la yori milliard à côté jinne maa ko formé c'est un entrepreneur yori milliard man waruma yor ay milliard te jàpp jàppale pouvoir bi yor ay kayit comme ñoom jiite ay opérateur ñu fay ma 14 ans kenn mënuma chambre de commerce bu ñu ko renouvelé man maay fay tekk fa ne arrêté leen caaxaan yi ñu wax mbaa fii laay waxee li ma xam li ma xam bu ma ko waxee àddina tukki barke alquran al karim ay yat ngeen di fab duma ministre yi génnee ndax li ma xam xam naa ko nañ arrêté ku nañu jox la cëram man sama wàll duma nangu ku ko taxaar di jëla ah. fab gone yu naan sàngara nekk ci tege ji taxaw café de Rome ak hôtel yi def lu leen neex ñu jox leen ni bon ñu koy jaay ba pare ñu ni ñor na ci ñor na je défie quiconque nañ dem débat li ngeen fi wax ab du Diouf ba léegi ni moo fi ñor musu fee ñor xam naa àll bi dinaa def tournée mois de janvier bi ci àll bi laa jëm bu ngeen joxee statistique ni lii la danaa leen wax ni du lii ndax fi ngeen ko teg fan la man maa leen dàq jàng gën leen a xam gerte du Diagne Fada xam na mi ngi nii toog Daaru Musti nekkoon ñoo dëkkoon bàyyam di suma xarit may waxtaan ak moom doomu baykat la mais xam na ne li ma ko wax xam na ko xam na ne xam naa gerte on enquête laa nekkoon nekk fekk Saliou Sarr Abdourahmane Touré Sonar Fatma Diarra damay lànk ba kandaaru et je vais informer tous les chefs religieux il faut ñu arrêter gerte gi ñuy jox di ko politiquer di ko jox ñoo xam ne ñi ñu amuñu tool ba pare ni ñor na jox leen engrais ñu jaay ko opérateur yi il faut ñu trier ko ndax opérateur yi leen wër ñoom PDS lañ nekkoon nax Ablaye Wade ba mu daanu ñuy défendre lépp ne baax na c'est pas vrai lépp ay kàcc la du dëgg c'est des mensonges et je le dis haut et bu dee loolu nag ku wax Macky Sall dëgg ñu rey la sànni la nañ ma rey ma baleen xam ne ngor amatul fii bi may xeex ak Doudou Wade sama xarita ba léegi ñu koy de xeex ak PDS li ma Ablaye Wade defal kenn defalu ma ko vingt millions moo ko jëkki-jëkkati jox waaye rek mu mel ni tontu du forox ginnaaw waxi Moustapha Cissé Lo ji Yaxam Mbaye directeur général le quotidien national bu Soleil tontu na tontu bu saf-sàpp kii di député Moustapha Cissé Lo Yaxam Mbaye nee na Moustapha du waxkatu dëgg maanaam ab kàccikat la du samay wax waxi Yaxam Mbaye la nee na kii di Moustapha Cissé Lo lépp lu mu am ci àdduna état la état moo tax nit ñi xam ko état moo tax mu mel nii mu mel moom Yaxam Mbaye sax nee na ren ji Moustapha Cissé Lo jot na lu toll ci 4 cinq cent trente et un tonnes ci semence ak engrais moom nee na ku nekk moo war a wax ku nekk moo war a ubbi gémmiñam ba mu des kii di Moustapha Cissé Lo quatre mille cinq cent trente et un tonnes yooyu moom yaa Yakham mbay détaillé na ko de journaliste bi détaillé na ko bu baax a baax nee na 3000 tonnes yi engrais la 600 tonnes yi semence ñebe la maanaam jiw ñebe nee na 500 tonnes yi jiw gerte la ak benn tonne boo xamante ni semence pastèque la maanaam jiwub xaal bu léegi yaa xam mbay mooy wax de nee na loolu yépp doyul ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo nee na député bi dafa ñëwaat di laajaat lu toll ci 430 tonnes yoo xamante ni da ko war a jox ay ñoñam maanaam ay protégem cay journaliste bi ma ngi koy détaillé waat de yaa xam yaa xam a ngay détaillé waat na 430 tonnes Moustapha Cissé Lo doon laajal ay jege ñaaleem nee na 165 tonnes yi semence ñebbe la yeneen 265 tonnes yi engrais la waaye mel na ni yaa xam pare gut ak accusation yi de nee na Moustapha Cissé Lo dafa jëlaat beneen liste boo xamante ni lu toll ci 98 supposé producteur maanaam ay producteurs yoo xamante ni existé wut mu dugalaat leen ngir amaat yeneen tonnes yu mu dolli ci tonam yooyee ciy Moustapha Cissé Lo moom de daa mel ni du doyal. ne intrant agricole yi mais moom ci boppam dama wax gis nga mafia bi ma doon wax ci njabootam ak membre de membre famille am mi ngi arrose bu 45 millions ANPEJ. ANPEJ mooy agence nationale agence euh, nationale pour la promotion de l' emploi des jeunes. ay doomam jabaram jarbaatam lu fa ñëw jël endossé. dañu fa bénéficier d'un financement. de 45 millions de francs CFA. DER bi ñuy wax ni DER dugal na fa demande projet 50 millions ñu bloqué ko moo tax mu dem. ñu bloqué ko ndax lan. mais parce que ay nja famille ay doomam la fa dugal créé ay fet dina lii sam dugal ay doomam ñu bloqué ko moo tax mu dem assemblée di saaga euh, de kii euh, ki yor der. waaw parce que démb ci benn intervention. mu ngi il faut que mais mais xam nga Cissé Lo tamit euh, mun nañ ko bañal yëpp foofu mun nañ ko bañal yëpp foofu sauf ne il ne s'assume pas nee na ci waxam. il ne s'assume pas au jël ay jarbaat ak ñeneen di leen jox. Mhm. moom mu dugal. Euh, ak ay nitam ak ay militam ñu bañal ko. c'est-à-dire mais loolu logique su fekkoon il s'assume dafa conséquent day dénoncer jarbaat yu góor ak yu jigéen ay rakk góor ak yu jigéen ñi nga xam ne dañ leen di jox dara mu dénoncer loolu su fekkee li muy woote ci moom vertu bi muy wootee ci moom bonne gouvernance transparence mi ngi ci moom mais lan moo wekk may man tey ma ne rek may mi ngi ci nguur geeg man may ay waa famille am am nañu man du ma xeex loolu parce que ñun dañuy woote transparence ma ne non comme que may ay kii yoo am man tamit samay jarbaat ak yooyu leen li jox mais affaire fan lay mujjee. donc Sénégal dañ koy pàccoo Cissé nee na kenn mënu koo wékk kenn mënul teg ci kawam benn dërëm boo xam ne. Mhm. contribuable sénégalais la mu détourné ko. Mhm. nee na bu yoroon réew mi réew dina jaar mhm. yoon. nee na amul lu ko waaye mën a gàkkal. waaye dama ne la moo taxaw fii ni dañ ko xañ laalul dara di di tuumal ay député di laal ngeen si ak. si tonnes ak consort man ma génn ko quatre mille cinq cent trente et un une tonnes ëpp na un milliard loolu. de franc CFA de. franc CFA ëpp na un milliard. waxal naa ko ni mi ngi yoreel ANPEJ quarante cinq millions yoo xam ni il s'est porté caution moom ci boppam jël carte d'identité photocopie ko bind signé ay doomam. tu as les preuves de ces allégations là. Eh, man du ma sos. lii liir ko lan la liir ko c'est quoi. oui mais ça c'est un document. non dama liir ko est-ce que c'est original. liir ko. je soussigné monsieur si nan la. prend l'engagement de me porter caution morale pour Cheikh Gallo lii lan la c'est quoi. et ce sont ces gens-là qui nous qui donnent des leçons de morale qui donnent des leçons de de de de bonne gouvernance mel na ni nag ku am kuddu doo lakk de waaw waaw ku am kuddu doo lakk ki nga xamante ni moo di Pape di doom ci Moustapha Cissé moom tamit génn na tontu yaa xam mbay de tontul na baay ja de waaw waaw kon Cissé dootut am lu ko metti de Pape doom Cissé ji nee na Yakham Mbaye ab sulaar la maanaam ab sulaar la boo xamante ni day wër ci école yi di wut ay mineur maanaam ay xale yu ndaw di leen noggatu cëy Pape li nga wax ëpp na de. ndax tolloo leen du nit ku crédible maa ngi jéggulu sax askan wi kàddu yi ma yëkkati jëmale ko si yaa xam ndax tolloowuñu koo xamante ni naan sàngara si bisturon yi lañ la xam la dynastie fay Sall yaa xam moo ko terrorisé woon moo fi indi woon la dynastie fay Sall bi ñu ko woowee dugal ko si mosal ko dara mu commencé kàddu aw làmmiñam ma dikk foofu si fet yi nga xam ne fen na ko sénégalais yi ndax am réew bu ñu ko bëggee yore nii dafay doy si comploté xas nit yàq nit loolu baaxul si am réew gis nga kilifa sooy génn di wax si moom fexeel ba li nga koy waxal mu mu nekk li am ndax Cissé Lo saa boo ko déggee mu génn di wax rek lépp lu muy wax boo demee danga nga siy duut baaraam génn na wax na loo xamante ni seen intérêt daf see nekk ñu bari ñi doon génn gone yi ndaw ndawaan yi wax nekk café dorom di wër di wax dafa laal seeni intérêt ñu coow mais li ma si gën a jaaxal mooy yaa xam mi génn yaa xam baayam du bay xamul gerte xamul dara si agriculture bu wax ji amee benn waay bu ñuy wax Farba Ngom fay ko ne ko génnal attaqué am nañ fi pist bi jaar ak fi mu jaar ak fañ ko réunion génnal song ko pour faire plaisir le président de la république mi ngi trompé wu te duñ ko ko may sos nag baaxul su génnee ay suivre ne Moustapha Cissé dafay def ay deal ak ay doomam si géey Moustapha Cissé Lo d'abord opérateur la ku ko xam-xam ko si sàmm ku ko xam-xam ko si bay loolu la yar ñun ak njabootam dafa am suma benn rakk bu ñuy wax Junior Cissé Lo opérateur économique la comme xale yëpp moom moo nekk ci secteur bi di liggéey ci agriculture yor ab GIEM moom la moo am contrat ak état bu Sénégal état di ko jox muy di ko subventionné muy joxe xam la lañ waroon a seet ndax li ko état bi sant mi ngi koy def wala defu ko mais amaa jëmmi jox nañ kii wala nangam ñaanuñu ñu dañuy liggéey ñu du ñu fay loolu yaa xam wax fenn la jaxase askan wi la wax loo xamante ni du dëgg la mais ku mel ne yaa xam mbay di wax ci moom daf may sonal. parce que koo xamante ni bala ngaa wax si doomi jàmbur wala nga wax si kilifa gu toll ne Moustapha Cissé Lo da ngay xoolaat sa passé yow yaa ngi abandonné say doom fee ak sa jàmbur chaque jour yaa ngi jël ay xale fii benn benn benn école bu nekk fii damay bañ a tudd école turu école bi chaque 18 yaa ngi fa gaare sa oto di jël ay mineur di yóbbu si benn hôtel bu nekk fii kilifa gu toll ne yaa xam mbay ñu jox la passeport diplomatu Sénégal ngay dem Paris ñu lay daggal ay hôtel si carte yoo xamante ni ay carte sàcc la ay carte visa jàmbur kooku am na leçon bu muy jox Moustapha Cissé Lo koo xamante ni màndi nga ba yàq sa àdduna ah xale yu mel noonu na leen président de la république arrêté te xam ne duñ référence duñ royukaay te ñooñu ñoo koy yàqal président Macky Sall ak président Moustapha Cissé ay doomu ndey lañ ay xarit laa xam seen diggante man de problème bi ñuy wax yëguma ko ndax suma papa waxuma ko te gisuma mu wax loolu député la gouvernement ñëw na critiqué na teewul lam gis lu baax si gouvernement mu war koo wax wax na ko mais nañ arrêté complot yi ñu nekkee far euh, Farba ngoom laa taxaw fee nee di recruter ay nit di leen jox xaalis pour ñu saaga Moustapha Cissé Lo ñu yàq deram ñu ngi wax lu dul dëgg xam nga reetaanlu mooy nga toog ci Sénégal yi naan Cissé dafa détourné Cissé bu ñu amoon dara luñ ko gàkkal booba ba tey ñu wax ko bu ñu amal dara luñ ko wax booba ba tey ñu waxal ko mais ñii ma gis ñu jëfur di wax nga xam ne ci bistoron yi lañ dëkk si ci jigéen ñi lañ dëkk moo tax ñu dérangé wu di wax yii ñuy wax mais duñ leen ko may ndax dafa jur doom yu toll na ñoom

xam ne koo ëppati mbokk mënoo koo jaw te ñun Sénégal lañ dëkk si réew mi lañ bokk Cissé Lo sañ na am na droit wax li ko li ko neexul si régime bi ndax moo fal Macky Sall dafa bokk si ñu xeex pour Macky Sall te damaa jàpp ne nit doo ko xeex ba pare di gor ay tànkam bi ñëpp bañee daan dafa nangu woon bi ñëpp di daw Macky Sall moom moo àndoon ak moom te boobu ay njariñ fi woon li ñuy wax si ñoom la nekk ñoom ñooy santas di wax Cissé Lo poste ñoru ko taxu koo jóg yàlla teral na ko démb 1982 la njëkk a tukki booba juddooguma ñun dañoo judd fekk teraanga dañoo judd fekk yàlla teral ko sëñ Touba lañ yaakaar lu sëñ Touba amul soxlawuñ ko li ñuy wax nañ ko bàyyi ñoom ñiy wax ñooy santaaskat yi ñooy kàcckat yi ñooy fenkat yi yaa xam mbay nag du nit ku crédible quoi di wax si moom daf may perdre le temps. dëgg la parce que maa ngi lancé appel solennellement le président de la république di président alliance pour la euh, pour la république yaakaar ji ñu amoon si moom démb tey lañ ko gën a am ndax nag ñun bi ñuy wan ginnaaw lépp di ay ndaw di xeex pour teg si bopp réew mi du woon lii. ay gone yuy comploté ànd ak ay mag yoo xamante nii si jigéen ak sàngara ak doroog rek lañ nekk di comploté ay gor yu set wicc di yàq seen der yàq seen njaboot président war naa wax si loolu ndax nag àndandoo bu mel ne Moustapha Cissé Lo mu bàyyi woon lépp démb ngir def la président de la république bu ñu fàtte tey ñii di wax bi fi mu Ablaye Wade nekkee ñemewuñu woon a wax tey la neex Cissé Lo dafa affronté lay Wade ba jëlee ko fi teg fi ab Macky Sall kon mënuñu koo tee di wax Macky Sall nag xaritam la rakkam la doomu ndeyam la jàpp naa ne dina ko woo ñu waxtaan pour tegaat mbir yi si yoon mais maa ngi wax président Macky Sall mu adduwaat xale mi yi nga xam ne euh, bu coow jógee rek ñu jóg ku mel ne yaa xam ak ñi nekk si ginnaawam far ba consort mu arrêté leen ndax duñu référence ba du nawleb kenn du référence su kenn bu Sénégal jaaroon yoon Cissé Lo daa war a yeew far ba dugal ko si maalu otoom Cissé Lo yamut foofu de yokkaat na ca beneen audio beneen audio boo xamante ni ma nga cay yàq lu mel ni xamee kii di Yaxam Mbaye nee na Yaxam Mbaye ab kàccikat la nit kay wuute nag ay justificatif am ba ni moom baykat la buy fen digganteem ak yàlla waaye man li may waxaat ndax dafa wax loo xam ne accusation te day fen waxul dëgg na ma génneel benn doom buñ ma jox ren bi ñuy joxe na ko génne ndax dafa wax ni samay mbo samay mbo waxul dëgg day kàcc li wax na ko génne dara bu ci dëgg je le dis tey damaa bëgg journalam ñëw bi nga xam ne soleil moomul journal bi dañ koy fay nee na journaliste la dafa war a transparent mais warul jël ay journaux ki xaritam di ci publier lu ko neex te nekk directeur national amu ci droit gannaaw daa far dafa war a génn ci journal boobu ñu dàq ko moom ndax day nax Macky Sall ndax li muy wax lépp day fen envoyé naa Macky Sall li ma doon def ci ay xaritam yi ko mën a jox ndax copié naa dinaa la jox not ci loolu man li ma jox état lépp lu leer naññ la nañ audité la ma waxoon parlement CEDEAO laay wax bu dee kay dama ko jox samay mbokk ak samay xarit na wax mbokk ya xarit yi ñan la loolu mooy wax bi mun mel ne da nga créé benn liste producteur quatre-vingt-dix-huit personnes te lépp lañ sant day kàcc day kàcc na ko génne il n'a qu'à publier ça mbokk ñoom ci dëkk bi ñoom waruñu leen a jox bu ñuy joxe je ne te li mu wax day fen dama ne loolu ça n'existe pas il n'a qu'à publier ça gannaaw dañuy am na na ko publier. nee na yor na ay kayit. mais na ko day fen kayit yi mu yor mi ngi mel ni kayit yi mu wax ci engrais bi notification lañ koy jox ñu ko jox xam naa ko mais li may wax je persiste et c'est qu'il ment day kàcc li mu wax lan moo indi loolu yëpp ah, xaw ma ko am ndax yoon li mu dugg yoonam nekku ci mënoon naa bañ a dégg lii bu leen nag daa nekk ki dealer yu koy monté muy nax président ndax bëgg poste yu gën a kawe ñu ne xam na Macky Sall bu ko moywul ci biir kàmb gi la jëm ndax gëmul Macky Sall dynastie Faye Sall moo ko créé même biñ ko dàqatee commencé woon na di génne ba biñ koy jox soleil yeneen ay wax rek ko gëmul yàlla mais amul ñaari nit fii amul ñaari nit ci Dakar ñaar ñi gën a tuuti wax na arrêté man bu ma moroomam na wuti moroom bu bëggee moroom. mais yi dafa mel ni si dafa ñagas lool ak saw gaaw APR yi lu xew. xam nga APR euh, malheureusement li nu dal lu metti at lañ xeex ñëw ci pouvoir. Mhm. gaa yëpp defe ne ñoom man nañ dara am nañu base te base dañ koy wuti ñuy positionné wu man nag bu waree jàppale sama way damay xeex raag ba dugg boîte vocale pour Macky Sall Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre ou le ministre, monsieur le ministre, collaborateur du ministre. Euh, damay voyager Abuja mais dama am obligation ñëw waxtaan ak yow ci point yu tuuti yoo xam ne yi en tant que porte-parole du gouvernement la benn bi mooy CEDEAO dañu décider woon ni roaming bi au niveau de l'espace CEDEAO dafa war jeex xaalis bu bari lañ ci fay Abdou wax na ko male li mu wax je suis d'accord xaalis bi ñuy jël ci Sonatel di ko jël ci euh, Tigo di ko jël Orange milliards yu bëri la ñoo gën a cherle ñun lu ñuy jël lu ñuy fay milliards ba pare nag bu ñu ko defee sa portable it dañ koy sàccaat xaalis bi boo toogee loolu war nañ ci xool ban solution ngeen ci jël beneen bi mooy soxna si yow yaay porte parole gouvernement dama la man mënuma gis Macky Sall dama la yóbbante ci moom ab ministre ab directeur général boo xam ne ñun ñoo koy fay dafa war a am droit de réserve nga nekk journaliste yor soleil di farfarloo di utiliser média ni da ngay dàq nit ak di fal ay nit te li ngay wax xamoo ci dara lépp ay kàcc la Macky Sall comme dafa dàq ñeneen yaa xam mbay nee ko Cissé Lo nee na na ko dàq mbaa lu ñu dégg ëllëg man la na jóge foofu amu fa place nit bu dee day attaqué ñu lay fay ci sunu ar nga fekk vice président assemblée président parlement boo xam ne dañ ko félicité ndax liggéeyam et puis cour de justice de la CEDEAO lañ koy yóbbu ndax dani dañuy surfacturer man ordinateur la duma dama délégué samay pouvoir dafa am contrôle interne ñi xam CEDEAO xam nañ ko j'ai été félicité par l'auditeur général contrôle interne bi mënoo jàllale benn facture bu ñu vérifié wul ndax dañ koy bloqué nga toog di wax loo xam ne xamoo ko marché gerte ak engrais duñ ko jaar ci marché opérateurs yi mat nañu 60 Demba Doy mi ca la bokk ci la bokk jëkkëru Mariama Sarr ci la bokk ñaata toni engrais lañ ko jox ministre bi mooy xool ñi muy jox yaakaar ne mën nañ koo jox buñ ma ko joxoon man dama ko yelloo mais li mu wax daa amul quatre mille et quelques tonnes la président la rousse mais kon dama koy yóbbu ci yoon deux mille trois waaw waaw jox nañ ko engrais ak jox ko leneen foofu laay yem mais opérateur économique la dama bëgg bu dee dañoo bëgg a yor réew mi ñu wegante xamante nañu ñooñu ñuy wax teñ leen di jox gerte bi may am million di ko diisale sama poos kenn amul ci junni kenn am je les défie ñetti compte laa am nañ leen audité benn bi UBA yàlla li may wax ñoom nañu wax seen xaalis fu mu jaar benn bi maa ngi ko am seen état ko contrôlé benn bi maa ngi ko am fii ci CBAO compte la boo xam ne yàgg na koo xam ne yaa ngi doon lebi oto ci Sonaga ak ak ay oto di ko utiliser di ci jëndi gerte seen parti bi dundalu ma defalu leen ma tous tous tous da ngeen maa fekk ma yor xaalis dimbali leen quatre cent millions laa def ci entre législative ak présidentielle lenn li bénéfice su gerte la lenn lii luñ ma fay la feneen ma indikoo dama lay yóbbante nañ ma bàyyi bu ñu bëggee jàmm gerte gi dama wax ni nañ koy séddale ci yoon loolu laa waxoon man bu ma ci waree am mille tonnes naa ko ci am keneen am ko ci cinquante mille ton kay bu ñu ma ci joxee mille tonnes ci ci cinquante producteur pour ma jaay leen ko ndax am na ñu may laaj ndax yi dañ laa jox nga joxe mais c'est pas vrai man une graine joxuñu ma ko dama leen a jaay. da ngeen a subventionné baykat bi moo may fay ma leen di topp xaalis ngeen ma yoral ngeen fayagu leen ma man maa lebi lebal leen dimbali leen ngeen bëgg ñebe ci programme de sauvegarde bi ma wuti ñebe ba Burkina mais ki ko def ab GIE la du Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo du du jënd gerteeg ñebe Cheikh Junior mooy moroomum ñiy wax mooy facture parce que c'est l'administrateur GIE bi li nuy war a fay dañ ko fay. ginnaaw yaa xam mbay far ba dugg na sa baal ba de waaw waaw Farba Ngom député añam bi nee na Moustapha Cissé Lo mbaam sax moo ko gën waaw waaw mbaam sëf sax moo gën Moustapha Cissé Lo loolu la far ba Ngom wax de. te tamit nga comprendre bu la Macky sal yéene woon àdduna ak li ci biiram su date bi jotee war a jeex rek kenn mënu ci dara. d'accord te loolu gëm yàlla la nag. d'accord c'est pas le genre de Cissé Lo la. tudd nga léegi koo xam ne mbaam sax a ko gën maa ko wax. wax wa amul du nit mais xam nga loolu aussi lu ëpp la boo demee ba wax baat boobu. non non non non c'est que non non non loolu dafa ëpp ko si. lu tax nga wax non mais loolu dafa ëpp. non non lu toll noonu. déggoo ko kenn aussi non non non xaaral wax leen non loolu dafa ëpp quoi. xam nga lu tax may cité loolu. wallahi lazim du caaxaan. non loolu dafa ëpp dans l'APR histoire politique de l'APR. li Macky Sall defal Moustapha Cissé Lo deful ko kenn ci biir APR je le dis haut et fort et je défie quiconque. mais parce que Moustapha Cissé Lô ku soxla mu ñëw débat ak man. Moustapha Cissé Lô daf ko defal lu ko kenn deful base politique fi mu bokk te y a eu un changement automatique. Moustapha Cissé Lô d' après avoir Dakar l' électoral s' est augmenté nga xam ne nañ kii amoon na engagement mais arrogance am ak doxalinam bu ñaaw ak ñàkk respecté kilifa diini ak ñàkk a warmal doomu aadama tax na ba nga xam ne ne ñu bëri noonu la ñu mag sol ndax jëmmam. Regarde l'électoral de Dakar aujourd'hui Moustapha Cissé Lo doful bay naan dafay jiite euh, mairie de la ville de Dakar c'est c'est nit boo xam ne ne da jël ay kaddu yu lu wóor na ne xam nga après même notre ah, deuxième législative dafa man maay nekk président assemblée nationale léegi léegi oh, honorable quand même mais baat bi nga wax dama bëgg nga ah changé quand même non non dafa ëpp quand même loolu comment ah, kaa xamul bëgguma ci sax dellu parce que dafa ëpp non da nga kaa xamul rek non non non caaxaan ma ne regarde parti nga xool histoire politique APR nga xool bi Macky Sall faloo nekk président laal bi ba tey laa la wax ba tey jëlal ma kenn rek kenn laa la wax koo xam ne ne defal na ko lu yem ak li mu defal Cissé Lo te loolu mooy lu ñu xam ci biti li nekk si biir boo ko xamoon doo ko jox la ko yow